اكتب لمن أحب وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم اكتب لمن أخذ وردي يا كريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فتاه وهاب يا رزاق يا ملكي لفت وهب لي وسخني وكن الآن عليك أزين عاجلا بالبشر مع مرض حتى أكرم لدين الله أكرم يسيب دعائي توبا وحمني وقني أبورا watutib li sama iskana laka sama wal aradi wal hawa bila musharikin li yarut mashik wa ajib wa sallim bislimin hasana di muhammadin tawdi fa xayran bara assalamu alaykum wa ñooy topp alxadim yi ci njiitul bu bu bi yàlla na sax sëñ Mbàkke Mbégéré yàlla ñu yàlla boole dimbale xam naa di nuyoo bi nag ñu tey jiital Cheikh Mouhamadul Muntaxa xafisahullah waraa yàlla na ko ko yàlla da sàmm ñu ànd ne fi ba ca kanam li kanam yàlla mën na ko barak Cheikh Xadim di siyaare turux yëpp xulafa turux yëpp foofu kilifa nekk rek ñu ngi koy siyaare xam naa anniversaire u bi kon kon ñëw na juróomi mi mi mi fan ca kori ca gànnaar ak sasin ja ak bëgg sasin ja waaw ak it jëm sasin mooy mooy weddul xaatim bi muy lu am solo alxadim yéen mu koy defee at mu at mu at yi yëpp mi ngi koy def di ko euh, màggal ngir bëgg a may promotion euh, nit ñi ci ñu jël wérdu bi ren nag nag euh, suñ mbàkkee dane daa bëgg ñu waxtaane njëriñul wérdu bi njëriñul wérdu bi nag bari na lool waaye li ci gën a li li ci gën a not di cee foor ci man mooy sëñ bi nee na kat ataalluqu yaxsulu bi axsil wird sawa an saaxabal xidmata aw la musayba képp ku jël wird wi ci koo xam ne am na ndigalul jëfe gi ak joxe gi nga nga am ci ci nga nga jote ko noonu sànq taalibe bi nga dooteen sax lëggéeyloo ma kon sart bu njëkk bi mooy ki la koy jox am ci ndigalul jëfe gi doyut mu am ci ndigalul joxe gi moo tax wax ne képp ku la koy jox na na nga am fulla yi ne ko sëñ bi ku la ko jox léegi nag léegi nag nit laaj ma ne boo ne ko xaatim bi si sëñ ma ko jox mu ne ma koo ko jox ma ne ko wala yu nabbi ko monsieur xabir expert professeur du taxaw di di jàngale ñu naa ko prof bi foo ko jëlee kooku moom ab daytal la waaye nag ku dul ñooña mag ña buñ la ko waxee da nga koo war a leeral sa sa sëñ Taala mag nee na bi bi ko si abi bu di di jox maaxuus dane ko nii la ma ko Cheikh Moustapha joxe woon neen neen nii ko ku baax ki joxe woon kon si si si abi kon ma nga doon dox kon ca ca aada ya aada yi suuf yi la wax nag. wird wi it dangaa gis ku jàng xasida yu lu baree bare walla muy wird la saar yu lu baree bare nanga mu junni ba noppi nag du wird maxus xasida yi si Sëriñ Tuubaa diggaluñu force nañu dañ koo war a jàng alxuraan jii sax du force na dañ ko war a jàng xanaa kay jàng ca loo bu dee nag maaxu sëñ bi da daa wax ne man de yàlla moom ma ko jox jaare ko ci yonent bi alayhi jëfandikoo ko digal ko aju ci man mu jëfandikoo ko góor ak jigéen fekk ñi ngi ci kaw suuf mu ne mu dëta mukk si him ñoom góor ña boo mukk si him fi duniyaa loolu kon moom moom moom leer na daal ne képp ku koy jëfandikoo ak sart ya sart ya nag yomb na lool léeg-léeg léeg-léeg seytaane naan nit ñi sart yi dafa jafe di judde sart yi mooy sart lislaam ci mukallaf la mu la tere ak la ma digal suñ bi nee na soo ko dee jëfandikoo ànd ak sart yi yooyu da nga am liimaan lislaam lisaan liimaan mooy nga gëm yàlla soxol bi tawxiid képp na ca lislaam mooy nga nangoo jëfe ndigal ya lexsaan lexsaan mooy loo def muy ngir jëm yàlla ja foofu nag am mbokkum Baay Faal mas na maa woo ne ma man de dama bëgg jël jël wérdu wi waaye man de eh, ndax ndax ku dul julli mën naa jël jël wérdu bi ne ko ah loolu lu wóoruma sëñ bi de nee na na ku ku kii nag naa am mu ne ah man kat mbokkum la coupé moo waat ko ne ko ah, man kat gisuma fenn nag foo xam ne werd werd dañ naan a Baay Faal du ko jëfandikoo kon nag mën nga koo jël am solo la waaw man jox naa ko ay ay ay Baay waaw ndax ndax léegi werd wi julli du ci sart sëñ bi bind ko koor du ci sart waaye nag ku koy def da war a julli war ci war a woor bokkut nag ku koy def ku dul julli mënu ko def sew sew la de boo xamante ne mën na leeral sëñ sëñ bi de ku ko jëfandikoo noonu da nga am saadu day ni saadu day ni mooy sa xel dal ci yàlla misaal kat soo ko jëfandikoo boo demee ba jëm ba sàq sa xel dal Ahmadou Diop day wax naan man de yor maa jëm ba xeex moo ma gën a doy wax wax na dëgg de nga xam ne kat kat yow sa xel dana dal si ma lam jóob mu tedd ma la ma waxoon ci mujj ga daal ne leer na ma ne su suma roo gi taqale ko sama càpp yaram bi mën nuyoo sama sang ba am na yëqin ah, ah, mag ñu sun mag ñu baax ña buñu masaa màggat dañuy bëgg waaw ah, xam ne ndax ah ñu nga woon ca tool ba di te wàcc yoon na ah <laughs> loolu kon sanaadu dara yi du du du du firi ab xaalis waaye mooy sa xel dal ci yàlla alaa bi sikki lay tatma'inul quluub kon moom loolu doomu doy na maanaam maanaam képp ku kuy jëfandikoo maaxuus bi ñun fukki fan képp ca noona da da am loo xam ci sa bopp am na ay gone yoo xam ne jox naa leen ko ñu ñu ñu wax ci ay kawtéef man maa ko defoon waxin ko saam jaxate am ku ma woone ma kat daa am jigéen ju am doom ba noppi te doom ja nanguwut dana ma ne ko ma ne mbaari jël kaas bi bidil bi daal di widd ma ko sa ëppoo ji soo demee na na na ci kii wala kii ci ci ne ma mu woo ne ma ma ngay benn waaye ma jox ko nee na dem Fuuta la wax xaw ma Jolof nee daa fekk maamam tiim ak soxna euh, magam ñu tiim ab xale daal di di jooy yaakaar nañ daal xanaa daal déggu naa ci ci ma daal di dem jàpp man daal di wedd wedd wi ko ko xale bi ne xam nag nelaw ba mu xëyee mel ne dara dër ko benn benn mbakk mbakk ba ma ko joxoon moom it mu ne ma daa jóge ci daara ja dikk ñu ne ko soxna si dafa wéré di mi ngi tëdd nee na ma daal di wedd wedd bi ëf ko ko mën a ñokkat yooyu mu leer la am na benn xale fan yi boo xam ne nee na xaw ma mbokkam daa wéré di wala docteur yi ne dañ koy opéré ba dañ koy jàngal wedd bi ëf ko ko yéene ko ko nee na mu dem hôpital ñu ne ko gisuñu dara <laughs> médecin yi dañ ko woon dañ lay opéré ñoo ko gis ñu dara xam nga sëñ bi eh, wérdu maaxuus yàlla ci boppam moo tànn ci ay magasinam ab secret bu mu fonk lay war a fonk gi mooy ki mu koy jox salaay salaam salaay salaam sangu sang sangu bindéef yi la koy jox yàlla jox ko jëwriñam joojoo ne ko joxal ma ko sa jëwriñ ja déet loolu sëñ bi loolu loolu leer loolu moom dafa leer nañu moom léegi nag yitte ji ji mooy dëgg dëgg man li maaxus bi li ma ciy woo mooy luy comprimer ne amurit la confirmation am na ñu naan nag kooku yorut ku mel ne ñoom Issa Guèye daal daal yàlla da nga ko daal farata man nag du du obligation la waaye nag confirmation la daal ku ko man na nga jël ndax sax murit ñu confirmer ko. ndax nag at yëf yi wóorut wóorut de sab sëriñ mën naa nekk am góor a njaay ah <laughs> wóorut de yow fexeel yow ba kilay lay jox wedd bi daal na ci am ndigalul jëfe gi ak joxe gi silsila mu tasila ba ba ci Sëñ Tuubaa càllale gi bu daggee courant bi du dog si kooku kooku moom kon moom njëriñ li kon moom leer na nañ ñi moom ci baatin bi ak saahir si Mouhamed Diakhaté mii na jël maaxus rek yam ca ab maanaam daa léegi ay yitteem gone yàlla yitte yi may ko ko mu mu mu mën a toog na jël maaxus képp saa su amee soxla ñaan nañ ko ca tur tur yàlla la tur yàlla boo xam ne borom bi ci moom borom borom bi xam moom moo xam ne bii gën mu ne ki ki ko gënal am kooku ne ki mu gënal am. asaj bi kon maxus kon ma xanaa tedd na tedd na de te te te léegi maxus silsila bi gàtt lool ci noonu ndax tijaan yi ñi ngi wedd wedd waaye ñoom si selu day gudd si sëñ Tuubaa gànnaar naar yi daal ñëw fi moom naa ko naa ko joxaat ñu xaajar yi ak tiyaar yi ndax mu gën a gën a gàtt man bu dee si si teel yu ma jox maaxuus Saliou dara wax xel koom ne yéen de seen seen silsila gàtt na man sëñ bi <laughs> gàtt na kon léegi sëñ Saliou jox na ma ko sëñ bi man ma jox ko kenn ak ay gàttuwaay ah <laughs> ah loolu si gàtt na te te li tax gàtt gi ñu ñu di ko ci sàkku dañuy bañ su guddee mu am fu mu dog te yëgu ko loola sëñ Tuubaa bi muy yees lu xaadiriya bàyyam ko joxoon bàyyam waaye gisut ci dara muy wër nag daal fu fu fu ndax daal wëdd wi dëgg la waaye xanaa kon daa am fa dog xanaa lu am solo la lu am solo la nga xam ne nga xam ne kon moom léegi fexe ba silsila bi wér loolu la ñu tuddee taqiqu silsila ci tasawuf da ngay fexe ba ba mu wér li cëng ne silsila bi wér na nga dox ca kon jigéen nag sama gone yii ñi nga xam ne ma am naa ci ñoom kilifteef dama leen ko jox donc yi fi nekk xale yu ndaw yi dama ne képp koo xam ne àgg nga ci war a julli da nga ko war a def am na xam ne naa dit ah, ndax moom diisut diisut kay diisut amul lenn lu ci diis kon daal kon moom gone gu mu kàllaf mu tàmbali julli daa war di wet góor la jigéen la bu dee bu dee am maam nag moo xamante ne man naam yaa joxe nangam fukki fukki léeg-léeg xalaas yeeg ñaar waaye man nag amaguma ci silsila sëñ Bachir keroog mi ngi laaj ma ne ko man daal téeméeri li xalaas laa amoon silsila ci sëñ Saliou booba man man man ci dara ja fanweer ak ñaar fukk juróom ak ñaar fukk ak fukk ak juróom fukk waaye fukki li xalaas ñaar yi moom amuma ci silsila waaw xam naa ne sëñ bi ko waxoon léegi la wax waaye nag loolu xam naa kon kon moom ci tënk kon kon xam naa kon laaj yi xanaa kon waaw hmm. laaj bu njëkk bi. laaj bu hmm. am na xale bu bu ma woo ci yor-yor di wax ne. am rakkam joo xam ne doon jëfandikoo awraad yëpp mu tamaatan ba mu andi ko tàngoor am na kilifa goo xam ne wax na ne daanako def ba mu andi ko tàngoor ba ñu bugg ci kilifa sànkam waaw léegi eh, xafiif ak mm, ay xuma yooyu ñu wax noonu léegi yow warshak ak xaalun bi xanaa du alxuraan lépp benn la jëlal jëlal benn bi xam nga nit ñi la saar bee tax ñu ñu ñu jàpp ne fekk guddut fekk bëriwut amu njëriñ waaw jël ñetti ñetti yëpp mu gën ndax mu bëri su bëree déedéet sëñ bi déedéet moo moo gën a foor baqara ah sëñ bi ñetti lixlaas su boo ko jàngee yow ngay tari baqara man noppi naa bu yàgg amu kaamil te amu bu jeexee doom kaamil yow kon leer na kon bu ci topp. li ma waxoon léegi ca ca naari gànnaar ya tey ma ngay jël wér de ba noppi nag dégg ñu ne am na ku ku gën a gàttale silsila nga dem yes ko foofa barkeeloo ko sëñ Tuubaa ñoom ko doon jox gànnaar tiyaan yi ñoom ay tiyaan lañ de ñoom dañ koy barkeeloo waaye ñoom seen silsila sëñ lañ yor ba noppi nag di bàkkeeloo sëñ Tuubaa lu am solo la ab si si de bu ci topp. Hmm. bi kay. wala ginnaaw eh, gi li naan ruuxul muridiyya la ñuy teewut moom. fi mu nii dëgg yàlla tey Cheikh Modou Mountakha tey moom. laa yomb na ko lool mu woote woon rakkam yi doomam yi ku ci yor mbindum sëñ tubaa ci maaxuus bi andil ma ko te nañ ma ko scanner ñu scanner ko mbind ma kenn ko laal ñu jël ko dal koy exposé ca ca euh, daari kaamil ku dikk gëstukat xam ne bii de moom ñu ànd ak tampom tampom ne la ma nga barab sàngam ngir boo ko bëggee wóorlu xare ma fa ñu ne lii kat mooy mission bi misaal tey eh, jàngkat yu ndaw yi xam yaakaar ñoom lépp lu nuroog sëñ bi mbindee ñu ne moom déedéet arsalahu xaq ja arsalahu xaq secret boobu jalaal eh, sëñ Murtala sëñ Murtala Fall sëñ Murtala daje di dem di dem Mauritanie booba man moom laay wërta

kaamil bi li ñu tuddee kaamil ak li ñu tuddee mu lañ xam ak xaatim bi am na nag yeneen yoo am yooyu mën nun xamu ko waaw waaye dañ koo saytuwut waaw foofu foofu du neex a waxtaanee dëgg-dëgg ndax waaw waaw baax baax na foofu de waaw waaw wér euh, yëpp kay teggin yi kay moom benn la waaw waaw waaye nag xam nga noonu noonu xamuñu bay xam sunu murid gii ci tasawuf fa la nekk te noonu xamuñu tasawuf te kenn jàngaluñ ko di xam nga tey maanaam euh, Cheikh Moustapha mu tedd ma. daa yónnee ci sama baay neen dafa dafa yónnee ci sëñ bi ne ko damaa bëgg a tukki ci kër gi sama baay ne xalwa sëñ bi ne ko ma laaj ko boromam dugg génn ne ko sa borom ne defal na leen ko ci ngeen bàddali mbooloo mi ne ko billi leen xar kanam ya laytee ñu yokki maa koy def ci xol ya kon dégg nga de Cheikh Moustapha sëñ bi dina ko yow sa sa xalwa mooy ne ci liggéenti mbooloo bi jeex na jeex na la la loolu ci xalaw ba ma ma ma nga foofu waaye nag ba li leen xar kanam yi ba ñeme leen ma mañ leen di di soxla xanaa jeex na. ndax mënees naa soobu baal bi ci loolu xalwa ci règlement soobu lan mooy njëriñu xalwa ba daañu ko. xaloo moom di jëriñu lu may rek wii de sa xel mi ci àdduna ba mu set wecc ci nga mateeru kese loolu nga de leer na xam xam nga waaw waaw waaw hmm. hmm, hmm, sew sew la de ndax aji na sëñ wala. ah si wala de xam nga léegi sëñ bi moom bi moom dalay digal dong booy def yaa nga ca ca sëñ ba soo bàyyee ni ko toj kese de xam nga loolu tasawuf ji bu bu ñu ko jàngaloon loolu lépp dañ ko ci indi waaw ma fiqu tariqa noonu amuñu ko di gét maanaam noonu murid gi noonu lépp luy sëñ Tuubaa amuñu ko ñu ci tabax ga tabax ja oto ya waaw compte bancaire luñ sëñ bi de noonu yàlla tere yàlla tere léegi nag bu bu bu ci doxee ab diir tabax ya day màbb oto ya màbb lépp yàqu dootuñu mën a am tabax dootuñu mën a am gi jëmm mbër mu mbër mi ëpp doole ci nangam ci lang ga maanaam maanaam léegi la ko taxam doole xam nga doona ah, ruuga bu ruuga ci ko lépp yàqu hmm? ñetti fan ñeent rek day mari day tari kon roo gii moo fi indi xéwal gi waaye ci waaye nañu fàttali ñu ko ak lan. sa yoon sama jamono di ñuy wax ñetti yoon. waaw ndax ñetti yoon lu ci ne ko ci ca moñ moomu bu mag ba mu ne comment su sutire la koom jàngal leen ko ni ñu ko bindee. li ci topp lépp kay lépp rek la waaw. de de de am na laaj bu am solo bu dee ca xaatim ba. enseni min huja ba ci amin yàlla ba xam am ñoo xam ne jànkat yoo xam ne dañ ne si asaba salasara salasi na ja xanaa xanaa salasi bi loolu loolu sëñ bi la man may leen sëñ bi bu ne woon Góora Njaay Moustapha Diop Góora mooy mooy maxus fukk ak ma xaw ma man sama nekku ci man sama nekku ci ma suñu doole li ma jox laay laay def man da man Sëñ Tuubaa wóolu naa ko de lépp benn saxaabi yi dafa am benn yahudi yi bu bu bu lebaloon seen salaam dara seen fay ko waaye amul seede yorub di dikkaat ne ko man kat eh, fayewu ma benn saxaabi fekk ko fa saa fay naa la mu ne ko mu kay fayewu waa ji ne ko fay na la. yow di dem waaye sincèrement ne ko yow loolu yow noonu commencé rek yow fii kaw ko de mu ne kon naka laa lay nangul la ci axabaari asamaaw ba noppi di la bañ lii mu ta nekk di te nekk di sëñ Tuubaa mi nga xam ne ginnaaw bakkan moom lañ fa yaakaar bu dee ma góor mu ne ko est-ce que la góor njaay <laughs> la waaw ba environnement bi sensé ci waaw foofu la yem maanaam dig digal bi. Ah, loolu la tuddee xaatul istilaam ci soobu istilaam kooku kawe na kawe na de kawe na de daa def indiqué bu bu am solo lu ci am njëriñ rek damay julli timis ca euh, timis ca saam jaxate si yéen sama bàyyi mu ne bataax boo ma xoolee suuf si seen seen ëtt bi te te day seen barsàq seen ëtt bi ma ma jaaxle ma ma ngi ma ngi maa ngi julli bu defee di seen barsàq di seen ëtt bi xool fi fi fi boobu boobu moo moo moo gën a for li nga wax islam mooy da ngay absenté wu totalement dem feneen fii nag da ngay boole ñaar xaaral loo ko xaaral maa de ndax man Gora Ndiaye ma ma ko wax <laughs> Amadou ah, waaw bisimilah bisimilah. bu dee maaxuus bu dee weddi leneen man man nga ko bu dee maaxuus moom dangay ngay boo ci daabaan dangay toog toogaay yu kuy julli wala fenkalaayu fenkalaayu nag yaakaar naa mën naa mag mag mag bu fenkalaayu ndax jekk ko. bu dee oto nag moom jublu penku bu dee da nga na ci na ci daaba juy daw fu daaba ji jëm foofu ay sa penku mo mo léegi toogaay bi sattuñu ci toog toog ku julli wala frenk laayu ndax xam nga nag dafa am teggin abaar bi teggin yi ma ma maxus bi mooy dëgg-dëgg lazim bi ginnaaw maxus nag mën ngaa dox di wedd leneen ndax ndax nag du lazim fii lasim la fii obligation la en tant que murit nga obligation la ci yow nga wér dama kook kooku yow da war a toog nag concentré wu ne ne kat di sëñ Bamba kat li ma li nga xam ne moo ñu lënkale lënkale ñu ak yonent bi ak ak ak ak yàlla mooy maaxuus bii misaal man wedd ci danaa wedd nii di di wéy wedd bi ma sëñ Murtala jox ginnaaw gee laa ko fixé julli gee ba noppi sësale ko ca rabbi bi bi may sax bi ma siñ seelu jox moom laa koy ubbee lépp dama ko fixé ndax si si tuwaa dana ca ca ca kii masaarik wér de mooy da nga koy wutal jagleel ko dara waxtu man dama ko jagleel waxtu fonk ko fi toll nii gee danaa koy yeex a julli le rek bu dee man képp la damay bëgg gee ma xëpp ndox ba sawar soog a julli gee waaw xam nga boobu bu julligee ci mbooloo yi da ngay julligee ah, daal dem dama bëgg nag man nag tal ko nag loolu lépp ci teggin yi la waaw loolu xam nga maaxus moom bu bu dee ñaar yi nga xam ne suba ngoon la suba gi ba yoor-yoor bu tàng bi fajar gi. yor bu tàng bi loolay muxtaar ma yor yor bi ba takkusaan kooku kooku kooku mooy daruri bi bu si ci takkusaan ji léegi da ngay fay bi nga defutoon waaye doo ko joxe takkusaan bi da mooy joxe bi takkusaan ji ba timis muxtaar timis ba fajar ja daruri bu dee nag xaatim bi la tusubaar ba takkusaan muxtaar takkusaan ba timis dërëru yi timis ba gee ba tey muxtaar ci ñaareel bi gee ba fajar dërëru yi léegi nag sooy wér dëkk doo wax doo wax suñu bokkati yaa ngi gis nga am solo bu ñu dee wér ko na ko wax sa sëñ nan kii eh, ne baayam da day génn ci njàkkay njareem gi eh, nuyu kenn ci mag ñi asalaamaaleykum kooku ne ko wala zikrullaahi akbar daal di moo wax ne bu leen nuyoo na ngeen fay mu ne ko waaye nag zikrullaahi gën gën a for loolu am solo xam naa ne sax sëñ ba euh, maanaam dañuy jàngal wala xamutoon ne sëñ baa ngi ci kursam kon kon daal la am ne kon maa xusa nga kon na ko ñëpp jël jigéen ñi ci lañ bokk. forcément day topp ci julli gi daal da xam nga xam nga bu ma indee muxtaar ma dërëy bi waxtu wi moom jot na. waxtu maaxuus daal lënkalu julli gi waaye bokkuñu dugg nga oto kat sa sëñ Bakki mi dugg oto jëm Ndakaaru timis jot oto bi taxawut sëñ Bakki léegi nag mën naa wér de maaxuus moom ginnaaw mi ngi am jàpp wér de maaxuus bi bu bu demee Ndakaaru julli. waxtu yi dañoo duggante waaye bokkuñu ok waaw waaw kon de kon kon kon rek di di di ñaan Cheikh Amadou Mountakha yàlla may ko wér kattan te te nag dimbali ñu ci ji dajale jéem a dajale nu sax yi wedd wi mbind loxoy Sëñ Tuubaa yi yaakaar naa daal su su ko ñaanoon rakkam yi doom yi danañ ko ko ko may bañ am ci lu wóor ndax kat wóoru de wóoru de waru de te seytaane mën na mën mën nañoo dox ba ci kanam foor bu bu bu wér ba gaa yi ne wirut for jël ba wirut for waaw ah, ndax ndax man am na am na ñuy indi ci man am na am na ñuy am man man ko ko ci sëñ bi da ma ca yaakaar ma ca yaakaar ko def dañu ma ci indil yoo xam ne loolu moom du ko wax. ndax loola kon mi naan gone yi naan turug lëndëm kon da ngay turni nit ñi ak lëndëm waaye daal xam naa daal اكتب لمن أحد وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم اكتب لمن أخذ وردي يا كريم